سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وأمته الغر الميامين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu leen yoo ziyaara leen ci bis bu tedd bi di ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu nangul ñu mboolem jaam giñ ci def ñoo ngi nuyu ak di siyaare sëriñ bi di ñaan yàlla sunu borom yàggal ko ci sunu kanam te may ko wér bam mu yeggale mboolem naalam yépp ci tal tañ ànd koog moom mbokki jullit yi xam nañ ne fi nekk jeexal nañ atam jullit mi ba dugg ci at mu yees mi di atam 1444 ci gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wasalaam atam jullit nag bu jeexee ba meneen dëgmal si am na lu ñu war a fàttaliku te mooy azaka kon waxtaan wi insha allahu taala ñu ngi koy joyal jëm ci azaka ak i njariñam ak ku ko fonk lam lay jural ak ku ko gannaawal itam lan la lay wàññi sunu borom tabaraka wa taala dafa wax ci alquran ci laaye ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ci suratul baqara ne inna alladina amanu wa amilu salihaati wa aqaamu salaata wa aatawu zakata lahumu ajruhum inda rabbihim wala xawfun wala hum yaxzanuun wax ne ñi nga xam ne gëm nañ yàlla te dëkke jëf-jëf ju baax te nangoo taxawal julli te nangoo natt azaka ñooñee day sunu boroom dig na leen tuyaaba ju rëy ak yool bu rëy ñooñee itam day duñ am lu ñuy ragal ci li weesu duñ ko am ci lay jublu si itam ci biir aay jooju kon tudd na ci ñiy natt azaka loolu ñu dégg ci ne kon kuy natt azaka sunu boroom dana la ci fay yiw wu bari waaye tam dana la fànqal njàqare ci àdduna ak ca àllaaxira mu waxaat moom sunu borom tam ci laaye téeméer ak juróom fukk ak ñaar ci suuratu nisa ne wal muqiimiina salaata wal mu'tuuna zakaata wal mu'minuuna billahi wal yawmil aaxiri ulaa'ika sa nu'tiihim ajran azima nee na ñiy taxawal julli ak ñiy natt azaka ak ña gëm yàlla te gëm bis penc ñoo ñépp nag sunu borom dana leen dikke tuyaaba ju màgg a màgg kon foofu itam lay joxe tuyaaba ju màgg jooju bokk na ca wal mutuuna zakata ñay natt azaka mu waxaat ci saaru tawba laaye téeméer ak ñett xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha mu digal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko na nga jëlee ci jullit ñi ab sarax te azaka def ciy duggaale nga jël ko ci ñoom ndax nga mën cee laabal seen alal yooyu ba noppi itam seetlal ca seeni bakkan tutahiruhum wa tuzakkihim biha laay yooyu yëpp nag ak yeneen laaya soo ko dajalee la muy tegtale mooy azaka natt azaka farata la ci farata yu mag yi nga xamante ni lislaam taxawal na ko waaye ponk la itam ci ponk lislaam yi ginnaaw bu jullit bi seeree ne amul benn buur bu ñuy jaamu tam yeyoo jaamu ku yàlla seeree ne yonent yàlla muhammad yonent bi yàlla la nangoo taxawal julli la ca topp muy azaka nangoo natt azaka moo tax nag buñ nee ponk la cëslaay la alquran feeñal na ko sunna feeñal na ko dëppook mboolem jullit ñi itam feeñal nañ ko moo tax nag ku weddi asaka lu war la ba nopp ca sax ca nangoo caa deltu gannaaw ñu tuub la nga lànk kooko dañ koy jàppe ku génn ci lislaam def na ko tuubloo bu tuuboo ñu jéggal ko waaye su tuubut nag am na ay daan yu ko sariyan yi teg mën naa yegg ba ci ñu jële fi bakkanam kon loolu lu doy waar la lu rëy la waaye am na mën nañoo gis koo xamante nag nangu na ne azaka lu war la waaye nay dana tax ba du nangoo génne azaka walla lam waroon a génne ci azaka du ko joxe kooka dafay bokk ci tooñkat yi nga xamante ni lañ yayoo yayoo nañ mbugalam yàlla ëllëg buñ tuubut yayoo nañ ko buñ tuubalee nag te tuub ga sell sunu borom mën na koo nangu sunu borom mi ngi wax ne ca laayey téeméer ak juróom-ñett fukk ci suuratu Ali Imran wala yaxsabanna alladina yabxaluuna bima aataahum allahu min lahum nee ñi nga xamante ni la leen yàlla jox ci ay alal ñu cay nay buñ jàpp ne loolee ñu cay nay ca seen alal yooyu bañ koo joxe ci yoonu yàlla duñ ca natt azaka duñ ca sarxe buñ yaa yaakaar ne seen nay googee ñu nay ci seen alal ya huwa xayran lahum buñ yaakaar ne aw yiw ci ñoom waaye safaan bala bal huwa sarrun lahum ndax mu ne sa yutawaquuna ma baxiloo bihi yowma alqiyaama walillahi miraasu samaawaati wal ardi wallahu bi ma taamaluuna xabir ñooñee di nay ci seen alal ja lañ leen ca digal ci asaka ak sarxe nanguwuñ ko caa def te man ko ñooñee la leen ci sunu borom di faye ëllëg mooy alal joojee ñu doon naye nay ca moom dana ko soppi mu nekk ndomba gu leen wër boo xamante ni sunu borom da leen ciy mbugal loolu itam ku ko dégg te yàlla baax la alal war ngay bàyyi xel asaka loolu ci alquran la boo dikkee ci xadis yonent bi aleyhi salaatu wasalaam itam na lool ci ku yàlla baaxee nga am alal te nangoo génne asaka abu hurayra mi ngi koy nettali nee na yonent bi aleyhi salaatu waxoon na ne man aataahu llahu maalan fa lam yuaddi zakatahu muthila lahu yowma alqiyamati sujaan aqran lahu zabibataani yutawiquhu yowma alqiyaamati summa yaxusu bi lahzamatayhi yaani suduqayhi yaqulu ana maaluk ana kanzuk nee na yonent bi alei salatu day nee na ku yàlla baaxe nga am alal ci àdduna mu digal la ci nga génn ca asaka nga am loo ko ca mën a génnee te nanguwoo koo génne nee na la ca yàlla fay ëllëg lu doy waar ndax nee ëllëg dafay soppi alal jooje mu nekk jaani njàngoor joo xam ne ju doy waar la da koy wër wët gu nekk nag di ko mbugal di ko mat naan ko man mii de maay sa alal ja nga doon denc ci àdduna ñu digal la ca génne asaka nga lànk maay alal jooje ana maaluk maay sa alal jooje waaye ana kanzuk maay sa alal ja nga doon denc ñu digal la ca génne asaka wala sarxe nanguwoo caa def lenn alal joojee moo soppeeku jaani njàngoor jooje di ko mbugal xadis boobu nag dafa firi li borom bi tabaraka wa taala wax ci alquran ne ci laayey fanweer ak ñeent jàpp ak juróom ca sóoru tawba yaa ayuha alladina amanu inna kathiran min al ahbaari ruhbaani la yakuluuna amwaala annaasi bil baatil wa yasudduuna an sabilillah walladina yaknizuuna alzahaba walfidda wala yunfiquunaha fi sabilillahi fabashirhum biadaabin alim yowma yuxma alayha fi naari jahannam fa tukwaa biha jibaahuhum wa junuubuhum wa zuhuuruhum haada maa kanaztum li anfusikum fa duuquu maa kuntum taknizuun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 رسول محمد رسول bismillahi irrahmaani irrahim kon aaya jooju nga xam ni mooy wallazina yaknizuuna aldahaba walfidda wala yunfiquunaha fi sabilillahi ba aaya ja jeex yonent bi alayhi salaatu wasalaam firil nañu ko leeral ko moo wax ci xadis boo xamante ni sayduna abu hurayra <clears throat> moo ko wax moom yonent bi ne yonent bi ne maa min saaxibi dahabin wala fidda laa yuaddi xaqaha illa ida kaana yowma alqiyaamati sufixat lahu safaixu min naarin fa uxmiya calayha fi naari jahannam fa yukwaa biha jambu wa jabiinuhu wa dahru nee na koo xamante ni yàlla dafa laa baaxee alal benn muy or wala muy xaalis bi nga nekkee àdduna te war caa mën a génne azaka war caa mën a sarxe te ko te amoo benn ngant nee na ëllëg bis alal joojee sunu boroom daf koy soppi ay àlluwa yoo xamante ni àlluway weñ la ñu jël àlluway weñ yooyu dugal ko ci biir sawara jahannam ba mu tàng jër ba xonq coy ñu wëlbatiku di ca daas di ko daas ca xar kanamu borom alal joojee akub jéewam ak digg ginnaawam te nee na su demee ba alluway weñ yooyee sedd dañ koy tàngalaat bam yegg fam yeggoon ñu jaar fañ jaaroon te noonu nag dañ noonu lañuy nekk waajooju ci bis penc boo xamante ni fii yow min kaana miqdaaruhu xamsiina alfa alfasana bis penc boo xamante ni ca ña yàlla na mu diire ci ñoom mën naa diire ci ñoom lu tolloog juróom fukki junniy at kooku nag nekk ak mbugal moomu bañ àtte jaam ya ñu xool fan lay bi ndax sawara la jëm wala yaasu billaahi wala aljana la jëm waaye mbugal moomu ma ngi koy xaar yàlla ñu ci yàlla musal ñu xam ne kon lu doy waar noonu te mooy am alal te nanguwoo joxe azaka nanguwoo caa sarxe loolu yonente bi leerale aaya boobu ci am mbugal lu mat di moytandiku la moo tax nag ku lànk ne doo joxe azaka léeg-léeg sax muy waral ab xare ndax yonent sayiduna abou bakrin takk na ab xare ngir maanaam ñoo ñu nag bëgg lànkoon ne duñ joxe azaka dafa xeex ak ñoom ba gañe leen ca la waxoon ne wallahi la uqaatilanna man farraqa bayna alsalaati wa zaka fa inna alzakata xaqu almaal wallahi law manacuuni qaala baciirin kaanuu yuadduunahu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama la qaataltuhum ala mane seydna abubakrin ba mu xeexeek ña lànkoon bañ a joxe asaka dafa waxoon ne man mënuma nangu man aboo bakrin kuy teqale diggante julli ak natt asaka koo xam danaan julli war na damay julli waaye duma nangoo joxe asaka nee na amut lu lu koy teqale fa moom diggante ñaar yooyu boo saxalee julli dangaa war a saxal natt asaka ndax asaka mooy àqi alal àq ji war a génn ci alal mu teg ca ne gaa ñii may xeexal day ngir ñu nangoo joxe asaka lu toll ne lu ñuy yeewe gëléem suñ ko doon jox yónnante bi ñëw bëgg ma koo xañ na duñ ma ko jox danaa xeex ak ñoom rawatina nag ñu bëgg a lànk ne dootuñ joxeeti asaka kon asaka ñàkk koo joxe daana waral sax ci lislaam ñu ñu taal ci ab xare njariñi asaka nag bokk na ca ka koy joxe xam ne bu ko jooxee ca nañ ko ko digale jooxe na ponk bu mag ci lislaam te jooxe ponk nag bu mag ci lislaam def na ca yaakaare bu ko sunu borom nangoo texeeg nit ki ci àdduna ak àllaaxira bu ñaareel ba ci njëriñ yi joxe asaka mooy dana jegeel kiy joxe asaka dana ko jegeel mu jege borom bi tabaraka wa taala dana yokk itam ak ngëmam ndax day sori nay te nay day sori yàlla sori mbindeef fi ñetteel ba bokk na ci njëriñi azaka day waral sunu borom bindal kiy joxe azaka tuyaaba ju màgg te loolu itam lu mat di wut la ndax dañoo digaloon ne fastabiqul xayraat day leen njëkkante jëm ci ay yiw te natt azaka bokk na ca yiw yooyee nga xamante ni mën naa joxe tuyaaba ju mag bokk na ci njëriñu joxe asaka ne dana far ay bàkkaar ak i ñaawteef ndax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moo ne woon as-sadaqatu tutfiu lxatiata kama yutfiu lmaau nnaar nee na ab ab sarxe ab sarax day far ay ñaawteef ak i bàkkaar ni nga xamante ni ndox boo ko sottee ci sawara da koy fay juróomeel ba bokk na ci njëriñu joxe asaka bokk na ci kuy joxe asaka yaa ngay jël ci melokaani nit ñu baax ña nga xamante ni ñooy waa aljanna sunu borom mi ngi wax ci suuratu daariyaat laaya jur fukk ak juróom jàpp ba ci fukk ak juróom-ñeent innal muttaqiina fi jannatin wa uyun aaxidiina ma aataahum rabbuhum innahum kaanuu qabila dalika muxsinin kaanuu qalilan min alleyli ma yahjacuun wa bil asxaari hum yastaxfiruun wa fi amwaalihim xaqun lissaa'ili wal mahrum ba muy tagg nit ñu baax ña nee na ñooñee day tagg na leen ci ay melokaan yu bari waaye bokk na ca nag lam wax ne wa fi amwaalihim xaqun lissaa'ili wal mahrum nit ñu baax ñoo ñooñee di waa aljanna bañ nekkee ci àdduna sunu borom baax leen alal xamoon nañ ne ñay laaj te amuñ ak ñañ xañ seen wàll ma nga ca alalam jooje mu ko daan joxe mooy da génne asaka di génne ab sax loolu leen tagge bokk na ci itam njariñi joxe asaka kiy joxe asaka sunu boroom da koy keral ëllëg bis pénc ba tàngoor wa mettee ndax yonent bi lim na juróom-ñaari façon yoo xamante nii sunu boroom nee na dana leen keral bis pénc ca keram ga bokk na ca nag wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa axfaaha xatta la taalamu simaaluhu ma tunfiqu yaminuhu nit koo xam ne dafay joxe asaka wala muy joxe ab sarax di ko nëbb ngir ragal njistal ba loxob ndeyjoor bi koy joxe loxob càmmoñ ba sax du ko yëg mooy lu ko nit jege-jege mën naa joxe alal jooje sarxe ko wala mu natt asakat te ko gën a jege du ko yëg ngir sori njistal juróom-ñaareel ba bokk na ci njëriñu asaka innaha sukrun li ni'matil maal mooy ku yàlla baaxe nga am alal xéewal googu mu la joxe war nga caa sant yàlla na nga cee sante nag mooy nga nangu caa joxe asaka <clears throat> juróom-ñetteel ba kuy joxe asaka yàlla dina ko baaxe mu am ca melokaan yi yërmande ndax geestu ga muy geestu ña amut ba di leen jox ca asakaam joog ak di leen sarax loola da koy jural mu am yërmaande te yar xamu yarhamuhumul arrahman ñi yàlla dogal ñu am melokaanu yërmaande yàlla da leen di yërëm lañuy mujj nag mooy asaka dafay laabal alal day tax nit ki sori nay asaka la it euh, day day day dolli alal tam waaye du ko wàññi ndax yonent bi moo ne woon maa naqasat sadaqatun min maal kon soññee baangoogu ñoo ngi ci njëlbeenu at atam jullit mi cent muy 1444 kon ku yàlla baaxe nga am alal na nga cay génne asaka te dugal ko fa mu a dugg na nga cay sarxa ngir jëm yàlla ngir nga bokk ci ñu yàlla doon tagg ci aayaat yooyu ñu fi tudd kon ñoo ngi ñaan yàlla sunu boroom mu booleen ci ñay tënku ci ndigal booleen ci ñay sori ndigal tam di ñaan yàlla mu yàggal fi sëriñ bi may ko wér gu yaram ba mu àggale mboolem naalam yi te ñu ànd koog moom wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.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 الحمد لله الذي اختار لنا شهورا وأياما لا يحصى ولا يعد فضلها نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا يضيع أجرها ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله شمس الموجودات وبدرها صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه صلاة تتوالى وتدوم فلا يبلغ كنهها أما بعد فيا أيها الناس يغتنموا أوقاتا يقصر عن سعة فضائلها الجو والفضاء ولا تعرضوا عنها فالمحروم من كان عليها معرضا فإن شهركم هذا له فضل عظيم عند الله وشان وهو أفضل الشهور كلها للصوم بعد رمضان قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم فلهذا الشهر مزية ليست لغيرها من الشهور ولا سيما يوم عاشوراء العظيم العظيم المشهور فإنه مشحون بالخيرات والفضائل فإنه مشحون بالخيرات والفضائل mashhuurun inda al awaaxiri wal awaa'il fa huwa xaqiiqun bi an yucazama wa yusaam wa yaxsanu fiihi ila almasaakiini wal aytaam wa yutasaddaqu fiihi bimaa tayassara min libaasin wa tacaam الحمد لله الذي أنعم علينا بإحسانه وحبانا بمزيد فضله وامتنانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أما بعد فيا عباد الله tadakkaru bi ayaati llahi wattaidu wattabicu axsana maa unzila ilaykum min rabbikum wa cala sunnatihi xaafidu qaala tacaala laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana wa kaana sallallahu alayhi wa sallam yataharraa siyaama yawmin faddalahu llahu ala gayrihi وعن ابن عباس رضي الله عنه عنهما أنه قال قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع فقيل إنه صلى الله عليه وسلم كان أراد أن ينقل الصوم إلى التاسع وقيل أراد أن يصوم العاشر والتاسع ولهذا استحب علماؤنا أن يصام اليومان معا وقال أيضا من أوصى على عياله وأهله يوم عاشوراء أوصى الله عليه جميع سنته وقال أبو بكر بن العربي رضي الله عنه أما النفقة يوم عاشوراء والتوسعة فيه فمخلوفة باتفاق نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث النبي الصادق الأمين يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaahi qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar la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 الله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 لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام